lii dàq na ragal wallaay ndeysaan lii dàq na ragal. voilà voilà wallaay voilà. voilà gaynde saa yi wax sénégalais yee koy wax gaynde saa yi dañu jot ni rek. waa Zeyzen wala ñooñu waa Zeyzen. non non du Zeyzen de Khoureys Thiam la Khoureys Thiam. Khoureys Thiam international. ah Khoureyssi Thiam moo ànd ak ay gàddu korom mais waaw li ma sécurité bi ma gis moo ma yéem moom la ay sécurité am la waaw sécurité bi ma gis sécurité la de dafa doy waar Khoureyssi Thiam la dafa rafet kooku Khoureyssi Thiam xale yi fere nañu waaw non fekk non tout cas oto bi mënul dem ndax mbooloo mu bari ndeysaan. oto bi mënut a bouger instant bi ndax mbooloo mu bari. man mii sax non. ngi noonu di avancé. ndeysaan Ousmane Sonko Ousmane Sonko. ah. xaar leen ko xaar leen ko cité kër góor gi. ndeysaan. image boobu ngeen di gis noonu. kooku mooy Ousmane Sonko. sénégalais yee ne dañ lay gunge ba sa buntu kër. ñii reeruñu ñii ndoguwuñu lu doy waar noonu image yooyu ngeen di gis sénégalais yee wane seen bopp. wallaay ndeysaan. image bi rafet na image bi daw na yaram wallaay ndeysaan Sonko sénégalais yi def nañ la seen biir xool wallaay lii ku ko gis mu daw yaram ndeysaan ñi ñoo ngi naan Sonko namoon nañ la yaa ngi dégg façon woy bu ne Sonko Ousmane Sonko xale yaa ngi naan Sonko mag ñaa ngi naan Sonko wallaay ndeysaan sénégalais yëpp génn nañ Fass Mbao jàpp Tëngéej yëmbal buun Malika Dakar ak li ko ñëpp a

Ousmane Sonko oto boobu ngeen gis drapeau bi mooy oto bi Ousmane Sonko nekk ndeysaan ñëpp a ngi génn xoolal waa pharmacie bi ñëpp a ngi génn ñi ñoo ngi naan Sonko oh Sonko. moo def moo war a jóg eh amee kii day yem